xasida yi xasida yi mooy sëñ bi xasida yi mooy sëñ bi ku bëgg a xam sëriñ bi da ngay ne ci xasida yi ku bëgg sëriñ bi da ngay ne ci xasida yi fonk xasida yi de kuy wut sëriñ bi da ngay ne fonk xasida yi sëñ bi mooy sëñ xasida yi mooy sëñ bi xas yi moo nekk moo nekk diggante moo borom digg ma yonent bi digg ma boppam xasida yi mooy sëriñ bi kon liggéey bi réy na liggéey Sëriñ Tuubaa réy na lool ndax luy luy lu baax rek nañ ca nekk nekkeel ko ca auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziare di jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi ànd ak ñun moo xam ci réew mi la ak li génn réew mi jamono ji yëpp nag comme niñ koy waxee saa su nekk ñu ngi ci li nga xamante mooy wàccaayu bis nga xamante mooy màggalu xasida yi waaye ren ji kenn ku nekk xam bis bi dafa am ay yeneen xar kanam yoo xamante ni liggéey bi daf ko am bu baax a baax mel ni waxtu yi daan na fekk mbokk taalibe yi daan bàyyeekoo fenn fu nekk waaye ren ji sëriñ bi joxe ci ndigal kenn ku nekk defe ko fa nga nekk ñu taxaw koo xamante ni waxtu yi moom it lépp loo xamante ni daan na aajowu ci wàllu ay xayma yoo xamante ni nit ñi dañ ci daan nekk rek moom moo ko daan yore sëñ bay ñu fas yéene koo dëkk rek suñu kàddu wax ci li nga xamante ni mooy liggéey bi waaye wax ci ren anam yi nga xamante ni moom lañ fas yéenee amal liggéey bi ah, sant yàlla julli ci rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ñaanal sëriñ Muntaxa xalifatul am yàlla suñu borom guddalaw fanam wéral ay jëram ñaanal sëriñ Xamsatu Mbàkke ibnu sëriñ Sohaybu yàlla suñu borom guddalaw fanam wéral ay jëram xanaa santaat sëriñ Tuubaa bu baax ci ndigal li nim ñëwe wàcc ci taalibe bu muy amale ko na nga xamee ne noonu lañ ko daan amalee suñ diggante ak alxuraan ak xasida yi waaye nag kenn ku ci ne fa ne mu mel ne soppeeku gi loolu rek la waaye du tee kenn ku ci ne fa ne la nga daan jàng ci limi alxuraan boo ñëwee jaalibatu ak la nga daan jàng ci li mu xasida boo ñëwee jaalibatu sëriñ bi joxe na ndigal nga jàng ko ca barab ba nga xamee ne fala la waxtu wii di fekk ñun nag ñu ci sant yàlla taw feex la ci ñun waajoon nan ko nag no raw nin ka daan waaje mu ne waaye nag nii la ko sëriñ tuba bëgge kon lan amoon ci yéene ñu nit fas yéene nañ koo dugal ca barab ba nu ne ba dëkkandoo ya xam ne bisu xasida gin daan dund si tuubaa nii la daan mel ci anam ya nga xamee ne noonu lañ ko daan defee Touba ci barab ba nga xamee ne nun fa lañ féete muy Touba Ndakaaru waaw. macha allah sëñ Mbaye kenn seen liggéey doon lu am solo ndaxte lépp loo xamante ni daan na dem ci wàllu bâche rek yéen ñi yéen a daan amal waaye ren ji dina ci fàttaliku koo xamante ni waxtu yi da ci daan ànd ak sëriñ bu baax a baax a ci wàllu liggéey bi muy seen góor a ngom ko bâche. ana kooku moom du ñàkk ay kàddu yoo xamante ni da nga koy am waaye di ko jaal mboolem ak njabootam leen wax ne sëriñ bi saa su nekk bu liggéey bi amee rawatina ren ji seriñ bi daf koy fàttaliku bu baax a baax a baax ngir ñu ñaanal ko ci alxuraan waaye ñaanal ko ci xasida sëñ Baye du ñàkk nga am ci ay kàddu témoignage yoo xam ne da koy am ci sëriñ bi Gora Ngom waaw alhamdulilah yàlla na suuf sedd ci kawam yàlla na ko yàlla dëkkal ci kër yi àjjanay firdawsiya yàlla na ko yàlla yokk ay leeram te sàmm ak njabootam ginnaawam muy sama baay Alaaji Góora ngoom muy koo xamee ne féete woon nañu fu yaatoo yaatoo yaatoo ndax bépp baas boo xamee ne daana ñëw ci màggalu xasida yi fa lañ ko daan jële te moom mu amoon ci yéene lool kon ren ñoo ngi sàkku ci mbokki taalibe yëpp muy alxuraan muy xasida nan ko ci fasaale bu baax a baax a baax a baax ci àjjanay firdawsi ya mu nekk inshallah allah mel ni lu am solo la Serigne goram Ngom mu donon ko xamanteni da daan japp ci liggéey bi bu baakha baakha ba di sàkku rek bepp mbokk talibi bi fo man ti nek ci réew mi ak li genn réew mi ko tambali tay ñu defal ko ay ñaar sëñ bay kaddu yu mujj delu di ñaanal serigne am satu mom serigne sohay bu yalla sun bogam guddal daw fanam wéral ay jegam te woyofal yeen bi ci ay mbagam delu di sakku ci talibi yep no raw nin ko daan bu ñewé jalibatul maghrib kenn ku ci ne defe ko noona ca ca barab ba nga ne nan jàng xasida yi nan jàng alxuraan te lépp ñu def ko addiyee Serigne Touba ni ko sëñ bi baaxoo defee. xasida yi xasida yi mooy sëñ bi xasida yi mooy sëñ bi. ku bëgg a xam sëriñ bi da ngay ci xasida ku bëgg sëriñ bi da ngay ne ci xasida yi fonk xasida yi de ku wut sëriñ bi da ngay ne fonk xasida sëñ bi mooy sëñ xasida yi mooy sëñ bi xas yi moo nekk moo nekk digg diggante moo borom digg moog yonent bi digg moog boppam xas yi mooy sëriñ bi kon liggéey bi yi réy na liggéey bi suñu tuwaa réy na lool ndax luy luy lu baax rek luy lu baax rek nañ ca nekk nekkal ko ca